kon yàlla rek lañ koy sante na ndax ci mbaaxam la loolu yëpp ame te ni ko Pape may waxe gare routière yi bari nañ Sénégal waaye néewul na gare routière bu am jumaa man ci li ma wër yépp boo maraîcher laa ko gisagum ak ñaaxar li ci des yëpp ay jàkk nga fay fekk loolu bu amee nag am na lu muy tekki waaye aw sas la aw sas la ki ñu sas ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko muy benn waaye bu ñu tuddee abdallah daxilallah jasar dëkk ca Koweït xamul ñaaxar xamul senegal xanaa ci kart waaye xamuma man mii xamul ñu bari ci ONG bi tamit waaye li ko ñor mooy defalal yàlla yàlla mi nekk fépp lu am solo la te nit ñi dañ ci bàyyi xel jàkka yàllaa ko yeeyoo moo ko moom màggaay bi moo tax yàlla féetale ko boppam wa anna al masajida lillah nee na xam leen ne jàkka yi yàllaa ko moom lam ca teg mooy bu leen ci jaamu ko dul yàlla fala tad'u ma allahi ahada moo tax ajjuma ji dellu si tey dama def conférence jaxaaw ci penc ma ñu laaj ma question ci mbiru divergence yi am ci jàkka yi ma ne leen man de ku ma ne jàkka ji jàkka tiijaan la du ma fa jullee boo ma ne jàkka murit la du ma fa jullee boo ma ne jàkka ibaadu la du ma fa jullee ndax loolu mooy masjidu diraar te masjidu diraar benn jàkka la boo xamante ni naafiq yi ñoo ko créé woon médina ngir indi divergence entre les musulmans jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem nar koo ubbi yàlla wàccee ci moom aaya ne ko laa taxum fii abadan bu fa taxaw mukk mu mel ni def koo laaj lu tax mu ne ko la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taqaama fii ne ko jàkka ju ñu sos ndax ragal yàlla mooy yey ñu fay toog di fa jaamoo yàlla waaye jàkka bu ñu ko defee ngir ne man damay wonewu mbaa ngir tari bee laa bokk mbaa ngir nee laa bokk nekkatul jàkka yàlla loolu nag mooy indi xuloo mooy indi ŋaayoo ci jàkka loolu tamit mooy waral ñu ne kañ fa fal faluñoo ko ci critère xam-xam waaye dañu naan askan wi la bokk mbaa ñoom ñoo fay falu ci dëkk ba mbaa moo fa ëpp xaalis baa nangam ak nangam su ko defee jàkka ji ju mës a joué bi jàkka daan joué ci lislaam ba taxoon saxaaba yi eggoon ci diine bi fu ne loolu nag laa bëgg ngeen xam ko néegu yàlla nag ku ko ormal ah yàlla ormal la liñ leen defal nii dégg ngeen ko ay million la ay millions yoo xamante ne fii la ko yàlla jagle woon donc Sëñ Juuf avant ngay ñëw ñëpp wax nañ ko E ci sa mbaax la ko suñu borom jaarale ndaxte li nga wone woon di jaamu yàlla ba jàpp ne jumaa de war na fee mën a nekk ba yàlla dogal mu nekk donc ni ko yàlla dogale noonu ah yomb na de parce que wax nañ ko amul benn jumaa bu am ci gare routière yi fii kon ñaaxara ko am kon nag loolu dañ la ciy sant di sant ONG bi nga xamante ne moom moo financé lii et financé ko def ko nag ci ñaaxar et mais ñaaxar moomatu ko parce que dinaa ne imaam ah imaam bi fiy jiite de mën nañ jàpp ne yaa ngi jiite àdduna ndaxte du waa ñaaxar rek a fi jule bépp client bu jóge fu nekk ci àdduna si mën na wàcc fii garage gi ñëw ñaan fi yéen waa garage nag. bu ngeen mënee bu ngeen amee xelin rek ku nekk mën na jàpp ne kon nag gare routière bi am na ku ci yàlla ruus am na mbindeef bu nekk ci biir gare routière bi bu yàlla rus ba tax ñu tabax fi néegu yàlla ku nekk na jàpp ne nag gis sa morom ne kii la bu ngeen ko defee rek dingeen fonkante bu baax te xam na it aussi lii a ah, comme mosul am ci yeneen yi bu amee fii nag a ah, nañ ko sant suñu boroom ngeen gën a takkoo nekk benn bokk ndey bokk yaay comme ni ngeen ko defee bu leen xalaat mukk liy safaan leneen lu dul li nga xamante ne eh, jullit yi liñ leen jagleel lii nag saytu leen ko bu baax ku nekk bu xëyee bu amee jot na ñëw bale fobeere ormal ko tiyaaba rekk nga ci ame te yaakaar naa ne loolu amul pay yàlla rek moo ko am te yàlla na leen ko yàlla fay ah comme nag waxtu bi dafa jege si sëñ bi ñu ngi jégalu ci kàddu gi xam naa ne du seen bu fi nekkoon dina wax lu raw li ma wax nii mais ne mën naa njàngat ne di njiit njiit de ah mën nañ koy ràññee ci lu bari xam naa ne nag ku bëri wërsëg la ndaxte chef de village wax na ko cinq juma am na fi ci nguuram mais boo waree commune bi it eh, imam ah bi mu fi nekkee ba léegi de juma yaa ngi yokk rek di dem loolu nag ak am njiit noonu lañ koy xamee ku dal la te ku gëm yàlla la te li am noonu daal eh ñu ngi ñaan yàlla nag doyul mukk am na yeneen gox yoo xamante ne bëgg nañ juma dinañ la solliciter rek. mais tey sama xol dafa sedd xëy na am na kàddu yu mu jiitu yu fi jib bëri na lool nag am ñoo xam ci séeréer lañ ko defee peut-être euh, je ne comprends pas je pas encore la langue locale mais ci nga xam ni dégg naa seen ay kàddu sama xol daf ci sedd te bi si jiitu mooy le représentant des chauffeurs muy nii dama rafetlu ay kàddoom parce que tey jii ay leçons de vie rek lañ fi dégg ay leçons de vie. parce que tey ci pas plus tard que tey rek dugg naa fii oto dem Fatick ñëwaat parce que euh, gare routière aussi ña fay yëngatu c'est des chauffeurs c'est des apprentis ay coxeurs ak yeneen yeneen y a des de métier mais am na yenn étiquettes yi nga xam ne dañ koy jox gare routière yi yooyu dafa war a dañ tey chance bi ñu am mooy tey waxuma la sax euh, kii mais ñu dañoo am chance tey yàlla defal ñu jumaa suñu suñu suñu. Euh, sunu sunu gaaru cer te juma ku ko dégg ku nekk xam nañ néegu yàlla la jàkka néegu yàlla la mais juma dañ fay jàngale chaque ajuma di nga fi di dégg ay xutba ñuy yenn ñi même bu dul ajuma sax am nañ occasion yoo xam ne nañ fi am ñu fi yeetal ñu fi ñu fi jàngal nit ñi kon nag occasion la vraiment pour chauffeur si comme ni ko euh, sëñ bi waxee woon di yéen li mu wax loolu rek moo fi war a mën a am fii kenn waru joxañ kenn ci ci ci ci ci ci ci ñàkk teggin wala ci ñàkk yar wala ci naka sudul noonu parce que wax dëgg yàlla gaalu routière ña fay liggéey dañu war nekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañu war a ràññi ci seen comportement maa la nga wax ne pas plus tard que tey rek yenn saa yi ñëw dugg fi oto dem ñu ñëw jaxasoo seen biir mais bu ñu ñëwee dañuy jàng di xool en tout cas voilà une très belle occasion pour nga wax dëgg yàlla képp ku bëgg defar moom boo bëgg defar moom am nga bërëb booy defaroo parce que fii tamit euh, xam nga fii secteur économique la parce que dafay am yu muy généré sànq euh, monsieur maire wax na ko ci speech moo tax lépp lu ñu fi war def rek dafa war dëppoo ak yoon bi ma ñëwee léegi dama xaw a xool tuuti euh, alentour jumaa ji donc war nañ gën a defar xar kanam bi sànq xoolal maa ngi xool fee ñu gis ay donc yii yëpp après mbay xam naa war ngeen si jóg pour vraiment xar kanam gi laay wax sax gaara coob bi yëpp sax mais rawatina ci wàccu jumaa ji ñu gën ko defar gën ko euh, ba mu gën a taaru nga xam ne vraiment que ce soit beaucoup plus accueillant. Euh, Ibrahima Ndong